asalaamaaleykum ñu ngi nuyu askanu euh, Sénégal fépp Sénégal a nekk si àdduna bi leen ñu leen jox seen wàccuwaay leen beral cant ak ngërëm bu amul ab mbokk yi man si Matar Coll li tax tey ñu def vidéo bi pour waxtaan ak askanu senegaal dañu toog déglu li ñu ruuma naat ne dafa am benn commission parlementaire ba nga xamante ne dana bëgg a dugg ab benn loi assemblée pour pousse élection yi yu war am le vingt cinq février deux mille vingt quatre mais élection yi sénégalais yi war a tànn fal seen jiitum réew yaakaar ne élection présidentielle du caaxaan sénégalais yi yi nga xamante ne nekk ay nu ñu diin nekk ay nit am personnalité ay nit ñu am valeur xam ne lu dañ leen jël di leen foowee nga xamante ne fukki fan moo des le cap pour ñu dugg campagne élection présidentielle ñu dégg ay rumeur yu ñu romanaat nan dafa am benn commission parlementaire boo dugal benn loi ensemble pour ñu mën a pousse élection yi ñu ko rapporter dama ne dañ nekk si benn nation bu sérieux Sénégal nekk benn dëkk démocratie nekk si vingt si unième siècle dama ne man Sidi Makhtar Coly xel xalaatul nii naan dañuy pousse élection yi am le vingt cinq février deux nga xam benn weer képp moo jot moo si pour élection yi am ñi koy jéem a xalaat wala ñuy jéem a fexe pour romanaat loolu bis bu ñu ko essayé fexe lan xam ni sénégalais yi askan bi lan am ak affaire parce que fu ñu ko bëgg a jaale mais assemblée nationale lan xam ni askan bi lañ fi toogal nguur yàllaa koy joxe te yàlla noppi bu yàgg ku foo dans un mois le vingt cinq février nga xam te askan bi moo tànn yàlla noppi na bu yàgg ñun dañu gëm yàlla kon xam ne ak jullikat lañ kon ñu ngi li ñuy ruumanaat dañ ko jël teg su suuf parce que nekk si benn nation bu sérieux da nekk en tout cas man sii Makhtar Coly maa ngi wax askanu Sénégal dañ taxaw tem ba nga xamante ne élection yi jëm le 24 février tànn ku nu war a tànn mu jiite Sénégal maa ngi leen sant